waxoon ci wàllu julli. wàllu julli waaw <laughs> dañ siy dégg ñaar waaw wàllu julli ji hmm. da ci am ñoo xam ne ni ma koy waxee comprendre wuñ ko hmm. jafe gi mu jafe man laa bëgg a wax. Hmm. maanaam jafe dafa jafe. ndax alayhi salaatu wa salaam bi ma laajee saaba yi ku mën a julli ba mu egg te sa xel génnul julli gi dem ci leneen. dafa am ku ko doon jéem ci ñoom. dafa leen a digoonum neexal. ay ki ko doon jël bi muy taay itam bi mu daataan eggal xel mi daa dem ci neexal ba gileem gileem gileem waaw gileem léegi mu laaj la waaw bu bu jotee ci gileem bi fu mu fu mu bu mu koy yeewe waaw léegi maanaam man li ma bëggoon a wax mooy xama 31 décembre dama faa mos taxaw comme mhm. ñoom nag bi la ne leen ku mën a julli na tàllal loxo nañ ko mais kenn man foofu laay waxee foofu laay waxee jëmi njàpp mi itam unkara gis nga boo demee ci xatmul quran ba jàngee alquran ba mu jeex ba ngay ñaan foofu tudd nañ fi yonent bi tudd fa saaba yi waa kër yonent bi giru xuray si ma neexee ma ñoom bu ma ci dugal Serigne Touba ko waaw ñoom d'accord amoon nañu ndigal ci di xeex di tuur deret ak yooyu waaw parce que dañoo bëggoon l'islam taxaw mais kii tuurul deret waaw moo dund laat l'islam mais kii hmm. jàddit loolu moo tax li soxna mam fàtti ne la way jiw bi moo tax bi nga xamante ni bi bi ma fekkee xale yi di jàngal bi ci jàkk ji sama bokk ci kon ci may jàng xat bi ma dugal ci ku teel ndax loolu yëpp am njàng la su may jàpp itam bu ma egsee ci loxo ndey joor loolu lu ma tàmmal xam nga habitude moom ma ne bu ma tuddee bu ma tuddee yàlla ci loxo ndey joor bi xaw ma ni bu ma ne laa ilaha illallah fii xaw ma ni moom ma dund la ci loxo càmm bu ma eggee ci tànk ndeyjoor bi itam jërëjëf Serigne Touba bi mooy ñëwal boppam du ma ko tey. dégg naa dëgg yàlla yonent bi moom fu mu nee diis rek moom peut être ci man jàttee nga soo ko man nii ma doon wax nii julli gi juróom julli gi juróom laa bëgg wax ne kenn mënu ko ñi ko man dafa bari dañoo néew ndax concentré li tax li tax nga koy xam mooy loolu mooy imam buy jamuj xam nga imam dina jóg mhm. man tombé na ci Touba Sheraton julli Medina Medina imam bi julli di tar Yasin ak Yasin ni mu yombee ci ñi jang alquran mu egg fo xamanteni bi deggat di arrière di arrière di gat ba da mu jéemale foofu rak bu njëkk xam nga loolu moom loolu moom maa man Yasin du ma ko taree gat te du ma imaam du ma ma rek donc bu ko defé mom nit ñi man dañ dul

lu may def lu baax lu nekk man ci yàlla digg la mu ci yàlla dafa diggat sa ku tedd ki ba mu nekkee Gabon ci taatu ngarab soo xam ne mënu koo keral as ngarab la sax bu gar ndax shajayra la ti taxawtukal la wax yàlla taxawtukal wax di wax daka maa ngi day woo ci wéet gi ma wéet fii ci sag wéetaay taxta shajaratin ci suufa nga rab si fa am gis waa adaka bi nga diggee woon def hmm. taxta shajaratin dafa am loo xam ni gis nga Sénégal yi bu ñu doon méditer bu baax ku hmm. tedd ki doon daj ko tudd hmm. nga koy jéem a gam-gam yoon kooku day ne man ngaa baax waaye daa bokkul ci benn rang jur lana بمفرد jumal khutta lana mu jele jeysin wa am manam dafa beru yalla du ko ber bu ko ci ben ra kala xama ni tunkara amna lo xamanteni bi bu lol li dem ak démocratie xew ak liberté d'expression liberté de conscience bu lol lol amna lo xamanteni bi fi tol amna ño xamanteni bi amar ñu fi ma